sayyidina muhammadin sayyidil awwalina wal aaxiriin wa alaa aalihi wa asxaabihi wa man daa bi daawatihi wa sanna bi sunnatihi wahtadaa bihi wa bihim ilaa yawmi ddiin mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam ci xaalam ak maqaamam di leen di jottali nuyoog Mawlana Cheikh Mouhamadul Amin Ibrahima Niass ma nga ca Kaolack waaye ñëpp xam nañ ne bi ñu yàlla dimbalee ba may ñu sëriñ bu mel ni Mawlana Cheikh Ibrahim nga xam ne ci xol la yare nit mën jëmmam mën na sori waaye foo nekk mën nga xam ne kii mu ngi nekk ak man di nuyu kenn ku nekk ci turam ci santam di wax li woykat ba waxoon rek ida staddamaa bi kaana afdalu xiilati lahu wadu kaffi fawqa xaddi wa askutu woykat ba daf ne woon bu ma mbir yi jaaxalee ba jaaxal ma wala yëpp wedam loo ma ba xaw ma lan laa war a wax damay jël sama loxo rek teg sama làmpi sama kii rek ne pat li waral loolu mooy lan li fi jot a jàll ci jotaay bi ci xam-xam Seydul Muhaadir li ma jot a fekkee ci waxam boo ko doon tënk rek danga nga naan lii mooy yaru baay ci biir waxam mu ngi ne nettali wax ji Oustaz Barham Diop daan wax ne taalibe baay bu nekk dafa war a bàyyee mu ne exemple bi ma leen ci jox mooy dee leen xool Cheikh Mouhamadul Amin Baaba moom dafa yàllaxe ndax yàlla rek la bëgg waaye taalibe baay bu nekk war naa fexe bàyyee mu ne ki nga xam ne dund na soixante-quinze ans ci atam zahir yi ñuy wax nii nit mësu mësu koo yab waroo tax ñuy jaaree ko ci yow pour yab ko te loolu li la koy may rek mooy li Cheikh Imam wax léegi mooy xam-xam jàng moo tax lim fi wax moom it macha allah ku am ñu mel ni ñoom ak Cheikh Ahmed mii nga xam ne ciblun min zaakal asad Cheikh Imam Hassan dafa amoon alaaka bu bu bu doy waa digganteem ak suñu waajur Cheikh Mouhamadul Amin te ñun dëgg la ay ndaw lañ waaye am na luñ ci mën a seede ndax euh, imam daan na wax ne man bu mu bëggee xam-xam sama nijaay Lamine moo tax ndax dama daan gis guddi mag moom ñoo daan bokk lal moom muy taal lamp di jàng rek ma ne sama nijaay lemin mii ci lim nekk nii wóor na ma ne du ay caaxaan ndax kuy jara xoole ba bërset ci ay téere rek man dinaa def ni moom moo tax ñoom ñaar exemple lañu woon ci ci péewu Mawlana Cheikh Ibrahim exemple lañ ci adab exemple lañ ci xam-xam exemple lañ ci yar ñoom ñaar seen diggante euh, mës na imaam mës na ñëw seetsi ko bi mu ñëwee jël enveloppe am jox baaba yaakaar naa trois cent mille la ci nekkoon baaba ne ko maa ngi waroon a dem nii Dakar te aw ma sax essence waxuma laa na dépence bu may bàyyi fii bi imaam de demee baaba joxe li muy joxe ba pare départ imaam oo ko téléphone ne ko sëriñ bi man dama yaakaar ne li ma la indiloon joxuma ko joxuma la ko baaba ne ko ankay mu ngi nii sama poche imaam ne ko déedéet parce que bi ma yegsee ba sama kër li ma la jox dama ko fekkaat sama biir poche loolu ànd ci yàlla moo mel noonu euh, Cheikh Ahmed cheikh imam ak euh, ñu mel ni ñoom moo man la fali fahum buñ amee ñu mel ni yéen ñun suñ xel day daal temps yële passé yàggul benn jour dañ doon waxtaan ba mu yàgg rek nuuru sama rakk ne Amadou baaba ne ko Amadou léegi diplomate la fàtte leen ko ngeen ngeen toppatoo yéen euh, mission bi nga xam ne ci ngeen nekk moom am na beneen mission bu mu nekk waaye bu amee yu mel ni yéen suñu xel day gën a dal ndax moo euh, Mawlana Cheikh Ibrahim bi mu ne avenir dëkk bu nekk mu ngi ci loxo xale ndawam yi te buñ xoolee jotaay bi ndaw yi rek ñoo fa ëpp waaye nag ndaw bu am yitte yitte nag mooy bëgg a jàng bëgg a jàng mooy du pour puukare waaye pour wane ne samay waajur ci liñ nekkoon mënuñ fa yegg de waaye danañ jéem te képp ku jéem rek alxaq naa bihim zuriyaatihim rek nga ci am ñu ngi sant yàlla ci jotaay bi bu baax bu ñuy fàttaliku ku mel ni al imaam Cheikh Jimlo euh, ñu ngi nuyu njabootam te ñun ci njabootam ci lañ bokk ndax euh, arab yi dañuy wax ne mën allamaka xarfan fa huwa mawlaak ku la jàngal benn xaraf rek kooku sa sa la sa sang la te man ak moom euh, nit ku nekk mën naa wax ne maag moom séq nañ nangam waaye man it am naa ci ay jagle te li ci bëri nag bu toogaan di ma wax da daan ñëw ziyaare si baaba nit dana ñëw li ñuy wax naan gan dana ñëw waaye xool ak ak ak bañ a dégg moom kenn mënu ko aaye gan bu ñëwee ci kër day observer di gis bu baaba duggee rek wala mu génn ci jaawee bi jàpp sama loxo dama gis naa nangam ak nangam nangam loolu lu baax la dee ko def gis naa nangam ak nangam wala diw def na nangam yow loolu waroo koo def wala mu ne ma gis nga diw bi mu ñëwee sëriñ bi ni mu def ak diw bi mu ñëwee sëriñ bi ni mu def xàmmeel ñaar yooyu nga xam baaba ni mu ni mu war a mel ak yow sa digganteeg moom ak ni mu war a mel ak keneen daan na ma jàngal yu bari li ma wax ne ma bi muy nekk Arabie Saoudite sama yaay foo lañ ko denc mu ne ma saa yu ñu àndaan ziyaara ji du ma wax yëpp de waaye saa yu sa waajur daan ziyaara ji sa yaay maa ngi ci ginnaaw te bu ñu yegsee dina ne jimloo yow jàngal nangam nga yàllal ko ko donc kooku buñ koy fàttaliku euh, euh, sant yàlla la ndax euh, inda zikri saalihina tatanazalu rahmat taw bi taw ci yoon bi rek bi ñuy ñëw ak li fi jot a wàcc ci xéewal rek gën naa dalal suñ xel ci ku mel ni imaam Jimlo dañuy gën sant yàlla bu baax di ko dolli ñaanal ndax euh, yonent bi li mu wax nit bu fi jugee euh, jëppam yëpp day dag day dagg lu may bu amee doom ju baax ju koy ñaanal wala jëf joo xam ne defoon na ko bàyyi ko fi te imaam jumloo lim fi def waxuma la internet bi rek waaye fépp foo dugg rek mën na la jàngal boo demee ci internet bi secret bi muy joxee ci mbiru oto Ibrahima Dia si mës nañ ci waxtaan jour bi mu defee émission bi dama ko oo ma ko ah man de temps yi maa ngi ci oto de mu ne ma yow soxla woo ndigal ma ne ko waaye nag baaba daf ñoo jàngal ne as sirru yasri maal isni mu ne ma kon jox naa la ndigal ci ndigalu baaba yàggut torop ñu am ñu am sa yaara e, loolu ijaaba lay wone ku mel noonu buñ koy ku toog ci jotaay bi di fàttaliku ne matut sax at wala at tuuti bi fi Cheikh Mouhamadul Amin toog di ko fàtt di ko di ko gërëm di wax ne yàlla rek lañ àndee te garanti ba mu garanti woon daf ne yàlla na yàlla génnee ci ci njabootam ñoo xam ne buñ ne kun yàlla ne fayeku ñu ñi ko fekkee woon ñu ngi fi te am nañ yaakaar ne li li ko may istimraariyatu mbiram di continuer ci kun fayekun googu la dugg ñu ngi ñaan yàlla yàlla gën a barkeel njabootam yàlla gën a saxal ànd bi te def ko muy ànd boo xam ne yàlla rek a tax li baaba di faral di wax ne bu dee bu fekk yàlla nga koy moom rek day jëm kanam maa kaana lillaahi daama wa tasal wa maa li xayrihi inqataawan fasal eh, mbokk yi dañoo kontaan torop eh, di wax ne bu fekkoon ne suñu jëmm yi rek la bu ñëwee dañuy toog fee àndak mbooloo mi déglu ci rifi taataan ci xam-xam waaye ma kuntu ahlan wa hum raawni ahlan lidaka fa sirtu ahla ki nga xam ne moom lañ fi jéem a teewal muy Mawlana Cheikh Mouhamadul Amin Ibrahima Niass bu fi teewoon kàddoom mooy gën a mag li mu bëgg a wax mooy gën a jub waaye ñu ngi ñu ngi sant yàlla bi nga xamee ne arab yi bañ ñuy waxee ne as sirru yasri ma al izni itam mu ne àdduna bi lu mu yàqu yàqu yàqu am na ay ndaw ñoo xam ne waruñ cee bokk mu teg ci ne bu leen ci bokk yéen ñi ci warta bokk xam ngeen ko bu leen ci bokk ñen lañoo ñoo ci warta bokk mooy ñi nga xam ne ñooy war a yore avenir dëkk bi ñoo war a yore avenir u euh, Sénégal ñoo war a yone yore avenir àdduna bi Oustaz Barham Diop mës nañu nettali mu ne bàyyi benn jour toog na mu ne samay taalibe euh, du ñàkk laa leen ragalal beew rek laa leen ragalal danañ am ba yëg ne am nañ beneen yoon mu ne araakum mulukal ardi la fa fazhadu gis naa leen ngeen ni buuri àdduna bi te loolu ku am basira bu ndaw rek yaa ngi koy gis ci zahir baatin bi nag moom yegg na bu yàgg ndax Mawlana Cheikh Ibrahim bi muy wax ne laakin na nii jëllaytu qabla sibaaqihim man yegg naa avant ñoom seen course du départ waxut avant suñ course de man yegg naa avant ñoom seen course du départ donc kooku bokk ci loo boobu ñun ñoo war a góorlu du pour wan nit ñi ne leen moom bokk ci loo boobu de ñun ñooy fexe ba nit ñi xamal seen bopp ne Maulana Cheikh Ibrahim moom mooy la solution ci zahir ak ci baatin ci xiss ak ci maana ci lan la koy wane ci jub ci xam-xam ci jàng ci jàngale ci wan nit ñi yoon bi fii rek la ndax nee na wa turuqu l awliyaai l asfiyaai ila l aliyaai sawaun ila l aw li ali chadiri rabbaani mu ne yoonu nitu yàlla yu mag yëpp yëpp benn yoon rek la pour jëmale nit ñi ci moo yàlla jëmale leen ci mbëggeel yonante yàlla muhammad sallallahu koy faral di ma ne Sénégal euh, tariqa yi fi nekk yëpp ñun ñëpp ñoo bokk benn kër muy kër ak lislaam kër nag ku nekk am nga ci sa néeg lii xew sa néeg yow yaa koy kiyal sa bopp yow yaay maître sa néeg waaye boo génnee ci ëtt bi yooyu na bokk lu nekk moo tax Mawlana Cheikh Ibrahim mu ne yoon yëpp ci yàlla rek la jëmale nga bokk ci tariqa Chazili wala nga bokk ci tariqa Cheikh Abdou Khadir Jaylani yëpp benn yoon la waaye nag am na ay yoon ak yoonam Oustaz Barham Diop mu ngi nettali mu ne bi mu demee euh, Pakistan bi mu defee waxtaan ak yooyu mu ne fekk daje fa benn waay bi mu waxtaan ak moom mu ne ko ñun de suñ dëkk amuñ ku ñuy yar ci yàlla salaatul fatiha rek lañ am mu ne bi mu ñëwee nettali ko Baye Baye na ko wax na dëgg salaatul fatiha dana yeggale waaye mën naa yéex nag parce que ku nekk ak yoonam ndax euh, loo doon dox boo waree dafay gën a gàtt waaye boo ko calculer ci espace boo xam ne ci loo xam ne amul espace amul temps loolu mooy jëm yàlla ji te loolu lan la ñu fi yeggale mooy xam-xam bu sell te loolu yaakaar naa ne ndaw ñi mar nañ ko te ñu ngi koy ut yàlla nañu yàlla boole ci ndaw ñi nga xam ne euh, li oustaz daan wax ne ñun de sañ nañoo wax ne ñun ay taalibe bàyyi leen waaye est-ce que Baye dana taxaw ne ñii samay taalibe la loolu lan moo la koy wan nga am référence référence parce que àdduna bi nii ba ñii nii nii nit mën na laa toog ne lii ba ko bàyyi di wax maa ko dégg lii Baye ko bind maa ko liir lii maa ko dégg mu waxal ko noppam kooku noonu waroo caaxaan bañ lay nax wala di la wax ay xuraafaat yoo xam ne nela kii moo def lii te yow xam nga ne ki nga xam ne ci yàlla rek la nekk lépp lu mu def te ajuwu ci yàlla rek loolu ay naxaate la euh, li Mawlana Cheikh ma Tidiane wax ne ida samitum anni cheyan fa zinuhu bi misaan shari fa maa waafaqa fa xuzuhu wa maa xaalafa fa trukuhu yow bu fekkee misaan boobu noonu balance boobu noonu li nga am doyut pour mën a de peese lu tolloog cent kilos yow nga taxaw ne kii lii li muy wax ni man rek maa ko xam nit ñi jàpp ne kii li mu wax óolu nañ ko ci yàlla óolu nañ ko ci bëgg baay óolu nañ ko ci leneen ba ñun ñu jàpp ne lépp lu mu wax rek dëgg la yow yaa war a seetaat sa bopp xam ne ñii la topp buñ la tegoo nii teg Mawlana Cheikh Ibrahim nii teg xam-xam nii ñu jël xam-xam jël Mawlana Cheikh Ibrahim tegee la na le ndax nit ñi yàlla rek lañ toppee nit ñi du askan parce que bu doon askan la ñun ñëpp màng nañ dem ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye ñu ngi sant yàlla bu baax di wax ne euh, cheikh imam hasan euh, sidi barham bi tey cheikh ahmadou ak ñun ñëpp ne leen hakada hakada wa illa falala turuqul jiddi gayru turuqul hizaari wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah abonné leen ci seen chaîne MALBN bu leen fàtte bës kolos bi ngir ngeen mën a am bépp xibaar bu aju ci wàllu faydu bi